nekk naa nekk ndax nekk bi ma nekk nekk ni jigéen jig na wa jig asalaamaaleykum mbokk internet yi seetaan seen télévision Sénégal TV nee leen mbégte ak contentement la ñuy am saa su ne di ànd ak yéen si seen émission nekk lu jéeg tey nag nekk lu jéeg ñu fas yéene cee waxtaanee conflit de génération maanaam ñàkk déggoo bi nga xamante ni dafa am ci diggante mag ñi ak ndaw ñi ci loolu nag wetuma ci maa ngi ciy dalal sama plateau Fat Bintou dalal ak jàmm di leen fàttali ne moom day soutenir teesu mag ñi nga xamante ni yëfu démb rek lañ gëm Fatou dalal ak jàmm. waaw man lay remercier ci invitation bi di la nuyu ñu ngeen ko may bokk plateau ak ñi may seetaan. jërëjëf Fatou ci loolu aussi am naa ci sama ndeyjoor mam Fatou Ndiaye maam Fatou dalal ak jàmm. am solo comme ni ma ko waxee won sank dafa nek lu nga xamanteni dafa lëmbee dekk bi muy ñàkk déggoo bi nga xamanteni ni dafa am ci diggante mag ñi ak ndaw ñi Fat bintu est-ce que dañoo wara yam ci li nga xamanteni mag ñi mom lañ ci bayyi won rek baña avancer non lool duma ko sant kenn ndax tay jii dembu wess na mais tamit jar na xel ndax dembu mo tax ñu naan tay bu dembu amu won tay du nek waxuma ñu jël ñu basé wu ci démb à 100 pour cent mais tamit jël ci dara baax na ci ndax tey ji euh, at jamono ji instant yi dafa yàqu ñëpp dañoo fàtte démb jeunesse yi euh, xale yi mujjee lii nii xamuñu démb ñoom tey lañ xam ñoom ci tey la ñuy dund ak li tey nekk li nekk tey li ñuy dund ñoom ci yooyu la ñuy dox xalaatuñu démb te xamuñu ko tamit. xalaatuñu démb te xamuñu ko mais soxna fat Bintou bu ñu seetloo suñu mag yi dëkk ñoom li ñuy tàmm di ñuy gëmal mooy daray bitim réew baaxul maanaam lépp lu ñuy copier ci nasaraan bi rek nekk lu baax ñoom lu ñu bëgg ndaw yi def mooy ñu rester si démb yow loolu ban jàngal nga ci def. non euh, baax na pour ñu di roy lii tubaab yi baax na baaxul ndax am na benn côté boo xam ne mën na la mën na la dimbali ci benn côté mais du lépp ndax tey jii euh, nasaraan yi ñoom li ñuy dund ñoom seen dund la tey ji bokku bokkuñu ak ñoom. ñoom nañ dund suñu seen dund ñu ñu dund suñ dund ñu dañoo am suñu suñ suñu démb am suñuy maam ñu daan def suñuy baax maam dañ cee war parfois tamit di man jeune laa mais tamit am na yoo xam ne jomm naa koo def ndax maa ngi bàyyi sama xel sama ñoom sama yaay li ñu daan dund affaire yooyu noonu kon am na yu bari naa ko pour def ko waxuñu ñu ñu roy leen ñu bañ leen a roy mais tamit ak ñu leen di royee ak ya ñuy jël ca ñoom tamit. nañu dund seen dund. te bayyi nasaraan si dund seen dund te olof day faral di wax ne ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom mu toog mam fat nan nga gisee kàddu fat bintu yi. waaw euh, ni ma gisee kàddu yi mooy fat bintu ànd naa ak moom ci benn côté mais beneen côté non non. yokkal ba bi tuuti. waaw euh, ànd naa ak fat bintu ci benn côté mooy euh, fi mu nekk ni dañu war a ressource dañu war a ressourcé wu nekk enraciné wu mais en même temps ànd ak jamono foofu moom d'accord naa ak moom. mais bu ne suñu maam yi dañu war a chaque jour di xool li suñu maam yi doon def chaque jour chaque jour mais non non jamono bi dafa dox dafa toll fa nga xam ne nii ñoom maam dee nañ mais kenn desatu fi. maanaam maam yi ñibbi nañ yàgg na. mais la doon baax ba tey man fa. ba tey ba tey nag buy baax ba tey ba tey buy baax. da ngay jékki di gestu baax baax yooyu mais nag ànd ak jamono. mais weddiwuñ ko ndax fi mu toll nii. ku ci àndul ak jamono xam. déglu ma weddiwuñ ko de mais tamit di ci jël da ciy baax. lool laa la wax nee naa ne dinañ jékki-jékki xool tuuti mais nag dund suñu jamono de. maam Fatou est-ce que gisoon ni li ngeen fi bàyyi yëfu démb xool ci nasaraan si rek est nekkul ne moo andi tamit. jafe-jafe yi ñu gis. Mhm. parce que yéen comportement yi moom waxatuñ ko lépp a yàqu. Mhm. côté habillement on a disconvié même pas parce tout à l'heure comme li constaté ci plage déjà ñu ngi ci vacances mais soo demee c'est du n'importe quoi habillement yi da ngay ree ba tas ah, boo waxee ñu ne xale lañ dañ koy dund est-ce que loolu aussi du leen andil ngaañte non non ngaañte moom mu ngi nekk ci mentalité rek ndax dëgg neexul deux pièces dafa rafet maanaam def sa deux pièces bu dem ci plage yi sangu dafa rafet dafa rafet waaw mais le petit montage tey la mën nga sol sa deux pièces bu baax dem ci plage bégal sa bopp te doo def lu bon est-ce que yéen tamit affaire si yooyu loolu noonu abusé wu aussi de trop. non non kenn abusé wu mais je me dis que ne question de choix la man jeune pour man ñaari yoon yow question de choix la parce que mën nga sol dara fekk na yow la nga sol ko def juste pour sa plaisir bopp defoo ko ngir bon choix la parce que nous a correctement. di watatu di sol seen ijaab yooyu noonu te bu duggee rek def te tëj de. am na solo nit a ngi sol lu rafet di correct te bu duggee teg def ay toj-toj est-ce loolu aussi raison la soxna Fatou Bintou ñu ñëwaat comme ni ma la ko waxee sànq rek dégg nga Fat Fatima la li mu wax sànq. Mhm. ci que dañu war a defar ba mu baax est-ce que du yéen tamit da ngeen leen a bàyyi comme ni ñu koy waxee xale lañ dañ cee toll dañoo war a defar ba mu baax ngeen bàyyi leen ci loolu noonu xam ne période la. ndax. li mu wax la nee na deux pièces deux dafa jekk ba pare nee na ñoom tubaab yi rëy ñi da ngay dañuy saa bu ñuy wax sax da nga naan est-ce lu ñu àndal àndandoo comme ça daal loo xam ne dafa nekk si ñoom. loolu moo ma reetaan loolu nag tey jii deux pièces kan moo ko fi indi. deux pièces deux pièces fan ngeen ko gisee. tubaab ko fi indi mais dafa rafet. tey kon ñu ngi rëy si ñoom ndax tubaab yi ak ñun duñ benn tubaab yi li ñuy dund. yëgu ñu xam ñu sax ñun li ñu ñun liggante bu ñu de ñun ñooy dem di xool dañuy def yi ñu koy jël di ko def fii mais buñ fàtte ne aussi jamono mooy dox jamono buy dox weddu ma nga dox ànd ak moom mais ak na ngay ànd ak moom tamit ndax tey ji imagine deux pièces yow nga juddee ci famille sa papa yar la nga judd ci famille ñu yar la tettal nga doy mag jëm toll benn âge bi dem ay plage sol ay deux pièces loolu jekkul ñu waxante dëgg deux pièces jekkul am na solo di fàttali mbokki internet yi ñuy seetaan que ñu ngi seen émission nekk ni jigéen di ci waxtaanee ba léegi conflit de génération soxna Fatima comme ni ma ko waxee tout à l'heure yéen maanaam roy bi sax dafa yematut léegi ci affaire habillement même langage bi sax dafa yàqu ndax ay damaa jongamaat dina ma neex dina ma neex ak ay yaay bañ ak yooyu yëpp ñun xamuñu ko woon te langage bu vulgaire la looy wax sa morom. waaw loolu lépp am na fi euh, sax na benn. Mm-hmm. mais dama lay wax ne ay yaay bañ ay jongoma yooyu fi la de jongoma hmm. Sénégal la ko xam de moo jongoma fi la jógee tubaab yi xamuñu luy jongoma de tubaab yi boo dee lay xam mais tamit dafa nekk langage bu nga xamante ni dafa dafa rafetul daal dafa vulgaire non jongama moom vulgaire côté boobu parce que wolof yi seen bopp ñooy wax waxu jongoma mais ak ak ñi ñu koy wax jongoma dafa am ni ko moom kii la ñuy woo naan ko jongoma kaay ma wax léegi dama la hmm. dama la bëgg a xamal ne du jigéen ñi sax la ñuy wax jongoma mais góor yi ñooy jongoma yi loolu moo gën a pire lo gën a grave loolu je te déjà moy liñ ñu doon wax sànq tout à l'heure da ngay na métamorphoser wu qu'on le veuille ou non. déggoo li loolu yépp ci changement yi ñu ci la ci la bokk. nee naa la lépp lépp am na fi lépp mën na nekk. Mhm. mais mën na dund sa dund dund sa ndaw à ta manière sans pour autant nga yàq sa àddina. lépp xam ni ngay def la rek xam ni ngay comporter woo xam lépp parce que tamit mën nga sol kii am na ñoo xam ne mën nañ dem plage. sol lu normal mais dugg ci ndox mi di def yu kenn xamul nit a ngi sol deux pièces am dund ci ndox mi foo def lu ko neex ta dara de plage yi toj de ñi ngay gis ñuy dugg ak seen jupe yu nganda yooyu bu ñuy dugg di ko aj mais bul fàtte ne aussi ñun dañu am suñuy réalité avant tout ay jullit lañ deuxièmement Sénégal la ñu wax dañu am suñuy réalité yenn habillement yi même bu nekkul plage sax. Mhm. soo ko solee nga romb rek day choqué c' est choquant. Ah, mais mooy li ma lay expliqué xam nga problème deux pièces. Mhm. mooy plage fu nekk ak li fay dem. Mhm. tey jii doo génn. di dem si yenn endroit yi ngay sol yenn affaire yi de boo demee doo bokk fu mooy ni ma lay wax rek lu nekk temps la ak heure fu nekk ak la fay dem tey jii boo génnee war a dem si entreprise yi war a def élégance wala normal nga dem sol sa ay dagget sol sa ay jean déchiré boo yegg ñu lay dàq mooy li ma lay wax rek temps la ak heure rek fu nekk ak li fay dem jamono bu nekk ak liy xew. loolu lépp dëgg la mais ba léegi problème bi mooy yéen lenn maam da ngeen cee doxatul maanaam. pour yéen dafa démodé. ñu ngi dox si yëfu maam de. ci ban façon seetlu li ma la wax. Mhm. parce que da ngay xool dëkk bi léegi àjjuma boo gis ñëpp traditionnel la ñuy def <laughs> ku doon sol daggit sax vendredi ñëpp dañuy def seen ay tay baas mooy li ma lay wax booy dem si yenn xel yére wala fi ngay sol. mais est-ce que. mais tey bi kese jo aussi. a a nax nit ñi. la de sa robe yow tey jii xoolal yaa ngi wax fii turu jongo euh, ba ci am yaa ngi wax instant yii déglu ma déglu ma yaa ngi wax fii ay turu jongo ah mbokki internet yi lay bàyyi ñu jugé ma ak yow instant ci plateau bi kan moo fi nekk jongo ma pire man ak yow te man jeune laa de man tout temps lay maye ji man damay sol ji di dangal ba mu baax mais jëlal bi maa yow tey jii kan la ñuy wooyee jongom bi xam nga yaa ngi doon wax naa ay jongom kii naan ay jongom ak ay dina ma neex waaw mais dafa am ñi ko moom jongoma dëgg pur dafa am ñi ko moom non non ñëpp a mën a jongoma non mais yow imagine ñii dañuy ñii dañuy dañuy yaakaar ne ñoom dañoo dañoo dañuy dañoo mën a nax. mais nag nga baal da xale bu jigéen di def di tocc di def lu ko neex di sol ay daggit vendredi jot de nga ne dafa sol sa tay baas def sa tagal. mais est ce que bu tamit lu ñu nekk xale rek moo tax liñ naan toll ci def ko parce que. waaw moo waral moo waral jeunes yi fan yi ñuy dee. jinne yi dugg ñuy xëy di crise ñu naa jàppal muy crise di ñu xool naa ay jinne yu kenn xamul dee non ak jinne yi day ji xale yi balaa ñëw dee dañuy dañuy su dañuy dañuy am dañuy dañuy sonn dañuy sonn ndax tey jii ñoom seen ñoom kenn xam luñu ay àndandoo lañ am ci boppam ndax dangay dem ba ci ñu ba ci biir da ngay xam ne ñii instant yi nekkuñu ndax dañuy def yoo xam ne du du def du def nit ñu waxante dëgg. pour yaw daal colu gu bon bi ñuy solu moo ko waral pourtant rab amoon na aussi bu njëkk. Hmm. non am na mais dafa ëpp léegi amoon na am na de mais dafa ëpp léegi. na imagine léegi une deux trois ñu né école ñii crise ñii daan lan moko ko waral lan moko ko waral ndax léegi jinne ñoo dugg ci nit ñi te tay ji imagine yo nga dindi mbax jumbax ci nit mooy nit nga génne sa jumbax def sa déchiré imagine loolu est-ce que tamit jotul mag ñi toog waxtaan ak ndaw yi parce que tamit di moment où échange day am il faut tamit ñoom ñuy def ñuy xool li bitim réew di def ñu koy def mais dañu war a toog ñu waxtaan ak ñoom non wax leen ne certes mais tamit ñu xool nan la ñuy mais bëgg leen tere yëfu lii tamit est-ce que tu poser problème. non mooy sànq li ma la wax rek tey jeunes yi da ngay xool doo xam sax am am dañ def dañ def sans gêne communication de ñu ñoo na ay communiqué ay nii bu nit da ngay toog waxtaan ak loolu sans yow sa di wax nga ah sa yaay ba pare parents yi dañ ciy jouer tamit en même temps ndax da ngay bëgg sa doom ba loo ko ëll ëllëg ndax sa doom day wax saaga teg saaga da nga ree kaf ak moom te yow yaa ngi koy lool. est-ce que mag ñi aussi def nañ lu leen war parce que du moment où nee nañ comportement yi dafa changé certes ndaw ñi lu leen neex la ñuy mais ñoom tamit est-ce que benn instant faay amul parce que bu yar bi waroon am est lii yëpp dina am aussi. waaw am na ñoo xam ne ñu ngi yar seen doom mais am na ñoo xam ne comme influence. da ngay am sa xarit mu génn di def comme noonu yow ñu ngi la yar de yaa ngi am sa diine toog sa kër mais nga am xarit àndandoo boo xam ne moom vulgaire la da yàgg yàgg da la ciy dugal te yow du en même temps say parents ni ngi lay yar yar la ni ñu la war a yare mais comme li ma la wax rek kenn moo jóge fee ànd ak yow yàq la

diine bi nekk ci kër kilifa nga gis sa papa day jiita sa am na ñoo xam seen papa day jiite ci jàkka yi gën a mag fii mais tewu seen doom bu la rombi ni la kii doomu imaam diw la danga naan déedéet mu sol lu ko neex bon nga jël nag toor bi këpp ko papa ji wala yaay ji te fekk na ñoom dara dafa jël yoon boobu bon mënuñu si dara am na solo Fatima comme ñu ko waxee sànq en parlant de mag ñi dañu war a wax ci ndaw ñi xam nga ñoom ñooy bu ñu waxee yar suñu xel ci mag lay dem mm-hmm. mais aussi ñun seetlu bi ñu def mooy mag ñi aussi ñu ngi fexee def li nga xamante ni moo leen war mais ndaw ñi ci boppam ñoo nangul topp ci yoon boobu ñu leen tracé lan ngay wax ci loolu noonu. waaw li mu si wax mooy li nga wax rek xam na mag ñi tamit dafa bëri ay mag yoo xam ne dañoo safaanoo ni mu amee ndaw ñu safaanoo noonu la amee mag ñu safaanoo de. mais est-ce que raison la aussi pour yéen ngeen ko mais da ngay gis par exemple xam nga tey jii yow boo juddoo ci kër gis sa ay parents am respect si si si si ñëpp duñu saaga duñu def yow yow amoo sax di sa benn proche waxuma laa sa sa sa yaay bi nga xam ne moom moo la jur loolu lépp ci tàggat la du loolu lépp ci tàggat la mais imagine parents yi nga xam ne tey dañuy am seen doom bu ndaw woo ko wala sa wala lii wala la li bu subaa day yaakaar ne war na ko mën a def de nga toog muy saaga sa kanam parents yi tamit am nañ ci responsabilité. waa léegi pour terminer parce que ñu ngi signaler ñu waxtu bi li ci des bariwul ban solution nga ñu mën a jox pour déggoo am si seen diggante ak mag comme mënul ñaan ak sa mot de la fin aussi. waaw ngir déggoo mën a am moom lenn kese la mag ñi jéem a comprendre ndaw ñi xam ne dañoo toll ci jamono ci seen jamono lañ nekk ñoom mënuñu wax ba ba ba ndaw ñi dellu nekk ay maam loolu moom c'est impossible lenn rek moo mën a nekk. ñu baral tuuti wax waaw lenn rek moo mën a nekk.